am na koo xam ne ki am na fa maanaam tawat ji coronavirus bi ku góor la nag koo xam ne ki moom mu nga dëkk ca Réfane am na nag ñun yóbbu nañ fa nag ñu eh, waa kër docteur ngir daal seen waa seen njaboot googule ñu mën leen a ber daal daal leen di confiner maanaam Adama Ndiaye. wax nga dëgg Hadj Maodo Bambey boobaak léegi mbas mi def ko teggi woon waaye am na tey kaam bu njëkk ci Covid 19 mu di borom kër gu nga xamante ne dañ ko testé positif fi nga xamante ne mooy bërëbu fajukaay bu nekk xombol moom nag mu ngi dëkk fi nga xamante ne mooy Réfane boo jóge woon na Ndakaaru nag foofu la jële wopp wi ab équipe médicale te ki nga xamante moo jiite pàcc mi fii nga xamante ne mooy bambay ànd koog ñi nga xamante ne ñoo di woy kaaraange bi dem nañu foofu nga xamante ne mooy ca dëkkam ngir nag confiné ñi nga xamante ne moo di njabootam maanaam Berlin sous-préfet bu Lambaye bi arrondissement bi moom euh, dafa fas yéene jël ab arrêté ngir aaye lépp lu jëm ci wàllu luuma ba nga xamante ne àllar bu jot dina fa am foofu ci refan ñu jàpp ne nag wopp bi di mbas mi mu ngi gën di law te it bu ñu deful ndànk dina gën a yaatu ci yi nga xamante ne mooy tund wi ndax boo demee fi nga xamante ne mooy ci luuma yi nga xamante ne moom lañuy ñuy nemeeku bu ci mel ni bu altene tey bu Bambey Séréer nemeeku nañ ne risque yi daal bari nañ lool ndax di ngay gis ñu nga xamante ne ñu ngi wëndeelu te yorewuñu masque wala bu ñu yoree masque it duñ ko takk daal di koy wekk ci seen nopp te loolu doon lu nga xamante ne day indi li nga xamante ne mooy mbas moomu Adama Ndiaye fii ci Bambey pour la rajo Sud FM. Adama ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax euh, maanaam ay kër yu bari ndax biig ngelaw li ak taw bi ci diwaan ci Ziguinchor ca Casamance moom daaneel na fa ay garab.